ربي بما يزرع الأذان قد فجاء بجاه أهل من لله قال جاء ربي بما يزرع الأذان قد فجاء asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën nekk ci biir mi ak ci bisim réew nuyu nañ leen ziar leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun di jiital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides euh, ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal ko it mboolem kilifa yi dina yëpp mbokk yi ñu ngi fii ci Kaolack ci sorti bi tey di dëppoog le 24 janvier 2022 di bis boo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir euh, mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides ni nga xam ne noonu la koy defee at mu ci wàccaayu ku màggal poroxaan gi di màggalu soxna jaara gi war a doon jeudi 10 février 2022 ca poroxaan loole nag sëñ bi ci jéego yooyu la nekk ba tax na mu fas yéene dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di poroxaan at mu jot nag bu dem ca poroxaan day jaar fi nga xam ne moom moo di ci dëkkub euh, Kaolack ci biir euh, dëkk bi ci Kaolack euh, ngir amal fi ak ngan goo xamante ni dina fi def ay fan ngir fas yéene saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi waaye it euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, daayira yi maam jaare yi mën koy euh, ziyaare waaye it mu am fi ay fan saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax Kaolack dëkk bu cosaanu la Kaolack dëkk boo xam ne la dëkk diine la ndax ku kenn fàttewul Serigne Bassirou liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax ki nga xam ne moom moo di doomam ja muy Serigne Moussa moom Serigne Bassirou nga xam ne moom moo fi nekkoon ci pencum Serigne Bassirou liggéey fi liggéey bu am solo ànd koog mboolem njaboot gi tey ji euh, Serigne Cheikh nekk fa moom it ànd ak njaboot gi di ci def liggéey bu am solo kon euh, loole ci wàccaay woowu lañ nekk ñu nekk fi nag ci sorti bi nekk fekk euh, Serigne Babacar Mbacké moom Serigne Moussa ñu gën koo xam ci Serigne Babacar mu kabaro ànd ak mboolem taalibe yi ak yeneen kilifa yi ci njiital ki nga xam ne moom moo di El Hadji Seyni Seck mi nga xam ne moom moo nekkal xalifu général des fii ci diwaanu Kaolack lépp rek ngir euh, tertu gi ngir waajal euh, ñëwug sëriñ bi fii nii ci Kaolack ngir def ko ñëw goo xamante ni daañu xam ne bu baax a baax a baax Kaolack am nañ gan te it dëkk la boo xam ne dëkk bu euh, mën gan lañ. kon mbokk yi incha allah fii lañ fas yéenee ànd ak sëriñ bi bu agsee ñu ànd ak moom ak ni nga xam ne noonu lañ koy tertoo ñu fas yéene dem ci pencum sëriñ Basiiru ca kër gi nga xam ne sëriñ bi fa la fas nekk ci diirub fan yi nga xam ne moom la fas yéene am ci doon Kaolack kon mbokk yi ñu ak yéen ci convoi bi.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 فلم تكن لي من عيوب نفسي بطيء منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وعاملي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز العزيز عقيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقضاء بنفسي لاخترت يا الله عجبت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر الكل يا الله يا خير خالق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسر والرضوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعونا سن وخن الأجر للجماعة يا الله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 أتيت به نسأت بسكريا يا خضار يا الله خانت لي وديعة دعي بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فخمس ألاتي فلا سكريايا وأبحي اللام لغوت أزمان لج يا ملو أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعد بن كنت ذات لأوليائك يا فتاء يا الله ألم تلل قيباء تعثت منتميئا أتى الأليم لاسي ألمت يا الله خبرت يا قابل أساء وانصرفت لخير نبيك الأدار يا الله بدأ ساكت الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي دارين يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مباستتي دارين يا الله قبلت يا قافل أبا ألي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك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 خلال وينسا واحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلالي ستي الانس والجن والشيطان يا علام انت سميع لاسي ناديته سمانا وبالمصارات لي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 لخوت فلن أسي من منك يا الله الله لاسي لقط مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أنت سكر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمد أسه يا الله علي لا في أحليت لي أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أنا الكبير لا في بانت كبارة لي خطفل لي قط من ككبي الأجر يا الله أتى الكبير الذي بانت كبارته لخط من ككبي الأجر يا الله أتى الأسيس الذي وجاءت في أباد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 ak xaas duñu ci boole moo moo moo moom rek la moo lii de lii mooy moo ko peñal maanaam mooy mandarga bi ñu ko mën a xamee noonu rek lii mooy mandarga mi ñu mën a xamee eh, dëgg dëgg tawfiix ji sëñ Basiru am ci suñ bi ak xaas ji mu ci am loolu <laughs> nag tawfiix ji ak xaas ji nag ñun ñëpp ñoo ngi ci biir waaw <laughs> non la dana noonu sant nañu bu baax a baax sant gi sant gi moom amul amul fànn fu mu lu dul ca ca ca kanam borom la ñu ci waaw. تتوسئة بالإبقياء الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى مصائبي وما أو تسوء يا الله